te journée bi nga neexul dara fii laa koy raxase ci kër bi fii laa koy raxase tey fii laa ko raxasu ëllëg yow lan la man ngaa gis bañ gis ci biir kër bi di ngaa dee. damaa bëgg laa sooy jóge fi li ngay tilim eh, yow ni ma la bañee gis naa gis samay butit moom laay ma la jëlee say siyo nag bugguma coow. kon kon nga xar sa bi nga génn sa butit bi ñàkk fayda. wax ji daal li koy guddal li koy gàttal pour nga jël sa siyo bala ma koy tuur léegi. bi dafa jógee wala ma këpp ko léegi. nga këpp ko soo ko këppee eh mam pende yow lan la. maa ñàkk fayda. Mam pende yow munoo may uppaa mi jàmm ci kër gi yow maam Penda yow suba gon guddi bëccëg nga bëgg fee am uppaa indi uppaa upa may ko jamu ci kër gi. dina ma may jamu ci kër bi de. upa sa nawle la. man dal daal di nga am problème. bëgguma ñëwaat fekk fi si dama bëgg mu juggé fi fa laa yem ak yow nak yow nga juggé fi boo gën a soobi mu jóge fii. dimbali ma wuy mo yow nga juggé fofu ci xaju nonu yow ki ma yow wax na la ko jox na la adresse bi so démé kër docteur ndjay tanti bi. Serigne fal Fall waaw waaw Serigne Ndeye Nogay Mbaye. mais foofu war nga ko xam docteur Ndiaye dentiste ay na fal waaw kooku mooy Cheikh Ndeye nga nekk en waaw dëgg la xam nga rek nekk sama problème mu document yeeg yooyu sama terrain yi ma doon jaay gis nga ko problème këy dal moo ma téye nii ci laa nekkoon nii sax boobu léegi. yow Mhm. E te nekkoo ci man. waaye sama bi ma la waxoon da nga ko fàtte. loolu la nati la. sama projet bi ma la waxoon. problème 300 bi yi nga ma doon laaj ko. non mais kooku amul problème chéri yow tamit dama la koy jox. si dama la koy jox sama diggante yow 300000 du dara. boo ko waxee dama gëm ko. yow de 300000 ya, francs. kooku duñ boole. nga xar sa biir bi nga génn sa boutique bi. bu fekkee gisuma ak gis sa boutique bi nga yamal. waaw déglu ma nag dëgg muy déglu. di nga war a wax sa biir. wuyu ma man xam naa lépp. yaa ngi may dégg te nag yow tamit aussi da ngay maytu wax mayul mayul coow li. man ngaa daw coow suba man ngaa daw coow bëccëg nga ne man kaa daw ngoon ah man ngay di soobi masih ak commencé gul sax ma commencé tak sama kaw mako ko safara fufu nak yexna di nga ini por ku ni opa ñëpp xam xamna ni yow liggéeykat ya yaa ngi may deg jambar nga ku am jom nga keur gi ba nga fi nekké du tay man ak yow demb lañu ndax yalla ñu bolé lima bëgg nag di ko ñaan moy nga wàññi coow li te daw li dimbali ma rek xamul bu ñëwul ci soow mi de ba lolu rek yow waye bu jikko ak borom ci piri man mënu téré man am jamm fi. di nga wàcc nga fekk fii new fii ci kër gi ma rey da ngaa bëgg néew rek di nga dee fii léegi du am sax dëj dañ ko taal fii man jaago xamul caaxaan bu ay mu dara ndax su fay la rek ma tànk xoolal am présenté woon la fois passée. kooku am na. su ko fee ba ñu daje woon nag un jour. ah docteur Ndiaye pourtant dama daaneel ni rek nga ñëw. Ah, docteur Ndiaye dentiste. dëgg la rek nga ñëw. keroog daa mel ni moom morom ma romb sax mais après gisaatuma ko daal. dëgg la docteur Ndiaye chéri chéri Ndeye Nogaye Mbaye. dëgg sama jabar ju baax ji. oui. waaw mais sama téléphone sonné nga. Eh, xam nga naan man sama téléphone kon luy téléphone yow yaay yabaate. mais eh, doo xool ni ngay waxee man. Eh, yow nag Papa Diouf wax ak yow jot na de yow maa ngi wax ak yow pareegu ma ngay xanaa kii du Aïda bi ma foog de laa yaakaar. mais si Aïda loo. sama jabar ko kan lo ko yow yaa mën a fen eh noppi mais aji yi eh dimbali ma nga nan man aji eh bu prononcer sama sama tur de respect quand même eh xam nga nan man fi la kharija wa yow am nga fit de bu dama ni dan amati problème eh may ma sama jam yow yow ca nga bu bëggoon nga nek ci yow li ma nekk ak yow yeb ya, xawma la kon aji lay wax yow eh xam la la wax jigen mo lay woo ma tong di wax ak yow jigen di la woo yow li nga don wax kon yëpp yi gëmoo xol len la lay xamal do bandi doo wuyu gis nga kii maa ngi dem lijjanti ko ak moom ca ba muy moom xamal naa la leen nag xaw ma Aida Chou xaw ma kii de bu fekkee Aida bi ma yaakaar la maa ngi nii di defante ko moom ba mu saf yow moom xam naa la on se connaît sama numéro nag leen laa lay xamal na dañ sa téléphone ba mu set. mais loo wax ni yow eh, xam nga naan man lan fenkat bi nga doon. mais yow Aji Aji Aji mais Aji. Puro lico, amor. ¿Eh? Tienen problema, amor. Oye. ¿Aló? Sí. man nag neexul bu neexul waaye waxtaanu imaam dem bi am na solo loolu ndax li mu wax da di dëgg ay mag bu ñu nekkee cib dëkk doon war di teg gune ci yoon di leen sensibiliser du dëgg yow xoolal jamono ji Sénégal ku jekk sa moroom rey ku jekk sa morom rey ba kañ mën nit ñi léegi damaa xamatul ñum ay ay lu ñu doon ndax loolu moom du yëfi nit nit mu xam ma nit nan lay mën a tiimee nit du ko rey te loolu ñun dañ cee war a wax ñu nit xar suñu tànk tubay waxtaan ak suñu njaboot yi loolu la ko fay jar. ah Seck daguma la waaye li nga dëgg la parce que ñun yàlla dafa dafa ñun ay porteurs de voix ah. bu ñu waxee gars dañ ñuy déglu ñu amuñu Sénégal mais rey fii xiiroo nga ne fii loolu bakkañ. ñun dañoo bëgg la paix ndax Sénégal dëkkub teraanga la dëkkub jàmm la parce que ñun teraanga la ñu xam Sénégal mais jàpp ay xale yi ndaw. di di rey ay nit ah jigéen ñu sol lu leen neex loolu ba kañ ah mais laa peewaay. doy loolu sax. pare ngeen ah pare guñ da waaye noppi neen dem. fu eh, toog nga ci wax ji ah. Eh, toog nga ci wax ci wax ji. wax ji moom xanaa da nga ci dul wax. am nga wax. am na imaam moom dala arrangé wu. man daal gis nga sekk mbayil ko leen dog man laa am man pour wax leen ko. imam ay waxam dara ñoruma ci ci loone ci loone jànq yaa def nii si nga de ça ah fi nga fële doy na merci yaa ngi daal moom bëgg naa yi ma yaa ngi si jàmm ay nii rek dox a dox a dox a dox bay dee dox loo dox baa jàmm la ci say mbir nag laa ne woon nag man mii yow mii dama laa yónni te yëguma ko ah yónni woo ma de waaye bëgg la du baax rek di la xamal ne la nag nga sama sëriñ ba ya demoon li ma ma wax ci yow yi boo ko xamoon taay déedéet daaw ii dànk dugal sa bopp jóg jot na gis nga gis nga nen bii waaw wala bi gën a piir ii yi yëpp moo ma ko jox say bagage la bëgg na nga jóg si sa bopp gis nga Aida ah aji boo xamul li lay fexeel ngay di nga jug sa bopp wala ñuy daanu si sa kaw nag. bu dëgg rek de dëgg lenn ñoruma ci ay waxam ay waxam safuma ndaxte imam mu ñu di waxtaanee problème mu rey ak i problème mu viol muy indi problème colin mel na man sama doom déggaluma ko lu baax cololuma ko lu baax. imam du kii sekk su ma mel imam na koo laal. déet moom dafa mel dafa àndul ci li imam wax. àndu ci waaye nag jàmbal yow kilifa nga te yor nga njaboot sa njaboot googu nga yor. njaboot gi ci siraatal mustaqiim a tax. ndax Sénégal léegi yàqu na kenn xamatul kat mooy kan. ah wax boo xamee sa bopp kay ñoom it ñoom it yàlla daf leen a boole ak ñun yore seen xama war ñoo teg ci yoon nañu nangu loolu nañu nangu loolu yow jàmbal da ngaa compliqué yow dëgg bëgg koo dégg. kii daa daa baaxul baax na. ànd ci ndax kii dafa nekk nit ku bon. ay waxam damay bilimaane. amul nan ay waxam jaxase na ma bilimaane nag. kon neexuma na nga wàccu. yow wàccul baa nga gal yow lii la jàmbal. yow yaa moom nit ñi. man na man na pare naa ci wax fi mu toll nii nag bu fekkee am dem mën ngeen bu leen neexee ngeen toog ba ci kanam non dama dama julli ji deux jot na maa julli ji waxtaan bi ci boppam moo mëntu la neex ngeen baal bu gunge bi garaaw garaaw sa toogal danga fexe man bu ànd ak nit koo xamante ni nga maam kenn di wax dëgg jul yow ngay yéefar man jàmbal nit wax rek ba mu baax kay. moom jot na moom. kon daal sa dox bi yëpp yi nga fi indi. laa fi indi pour nag. te man maa tax. yow de yaa nga jot de. bu nga am jàmm. man maa ngi si jàmm nag. Ah, kon ne woo si jàmm ku la xool sax ne woo si ba ma xoolee. xool sa bopp sax ni maa gën a nekk si jàmm. ne woo jàmm. yow da nekk si fitna. Mm-hmm. xëy di tal doomi jàmm di jënd te jënd woo sa bopp. yow lii yaa ma gën a soxla. ah du ma la ko gën nga xam ne saa yoo xëy daa sa tànk wër àdduna buntu boo buntu ngañu fa tangañ wax fa ba geex génn gis nga nag man duma yaag ñi ko séqal man bokkuma ak ñoom te bu ma yëngalee na la ci man bu koy yee ah yëngatu li nga say ñàkk fayda yi na mujj na njëkk bu ma ko indi la ndax soxlaaw ma ko waaye yow sax nag yow yow ban ñàkk fayda laa la woon ba nga tax nga war jug ni man nga indi say ñàkk fayda yi waaw ah, man ba ñàkk fayda laa la woon ba war laa mën a demal ci sëriñ la sama dama laa yónni nga may toroxal dama laa yónni yónni woo ma dañoo bokk na ak baay déedéet xolal lii bu mu amati dégg nga li ma la wax. sa pirig bu kaname sa punaise yu bari. waaw ah, jërëjëf dee naa dee naa bu sa dalatul neex xamulee ku leen di dimbali. bëggoo ko la jàppale yaa fii jamono ji ñu nekk moom bu bëree ñu daan sa kaw ku bëreewul ñu daan sa kaw ma la wax. Hey, hey, Amady, Amady, hey, hey, hey, Amady. Amady eh, eh. yow la waxal lii ma gis ci kër gi nii lan la. loo mii ma gis mu génn fii yor jakata. waaw nga tekki sa bët ma yaakaar ne su ma ñëwee dinaa la fekk nga yor beneen jëmm joo xamante ne jëmm jëmm am lu la métti loolu Ndeye nga mel ne lu dara xewut te ne gis nga leen laa la yëgat. amet mii mu ngi bëgg a plafonné te bala moo yéeg ba ci kaw ma damm ay laafam gis nga jakarta jéyi gi ma dégg yëpp mu def ci dëkk bii sama doom permettre moom pour mu yor ko yaa ngi may dégg baax man dinaa gis sama doom ji mu yore jakarta li jakarta di def ci réew mi ak ma gis li jakarta di def man mii di ndayam jakarta def ma nii ma di ko wàcc mu yore jakarta amet fii la toogoon léegi ma wax ko li ma koy wax su génnee yore jakarta gisuma ko toj nag jagataam ci kër gi léegi génne di waa lu ma gisul naka laa ci mën a toppe ci kër gi jambal bu ma tooñ man duma gis sama doom ji di mu yore jakarta ma bàyyi muy dem dégg naa li nga wax wante leen dong man laa am man pour wax la ko amet bu ñëwee si kër gi fii dinaa ko wal ba mu nooy nepp ku laal amet nga mel ne gaynde waaye bu ñëwee dinaa ko wal ba mu mel ne tege dege man sooba yàlla yéen jakarta kenn du ko tere kenn ma di la ci wal waa baax ma di la ci tere leen bëgg nekk ci liggéeyu kër gi bëgg nekk ci amet ne ci miyaa am na xam dafa metti sax day bëgg metti lii maa sonn métti nekk ci mais nekk ci liggéeyu kër gi daw bay bëgg a dee son li lii dafa mujjé sax metti métti waa jànk wa aba pourquoi am bo wa bo ii aba bo na jantal na teenuwaar bi nak mom benn la amaa fa mu coofe ëpp na sama baa nga wax de jànq nag yaa ngi may traversé de ah. te naa pi nga say cër pour abaa moom sama yëf moom ko teg ci sa bët falaayam nag naa ne sa alal la de waaye abaa hmm. nga ah, man góor ñu coofe loolu laay wër déedéet kay kii dama leen di wëree ëpp dama leen di wër ba suba ba ngoon ma dem naa ndox tëddi ñaaw <laughs> ëpp na kii yoral na ma lu ne ci kon baax na ba tey yow yaay yow yaay hypocrite yow xam ma woon ni àdduna juróom-ñaar ñëpp dinañ ma tromper ba mu des yow.